kër yow euh, transhumance bi yaakaar nga ni mën nañ ko fi dindi parce que Makhoury Diallo mu wax aussi leer na mais yow est-ce que d'accord nga ci ak moom. bon euh, je suis en phase avec lui en moitié mooy ci transhumance bi parce que man dama gëm ne Sénégal toll na foo xamante ni ci politique mënuñu fi dindi transhumance. en ñu euh, ça ne dépend pas de la formation politique mais ça dépend de l'humain de l'être d'abord. nit ak ngorom daal. voilà parce que formation politique. c'est nécessaire baax na lool pour le développement du parti pour jàngale conviction parti bi pour le développement du projet du parti mais fu fu mu jeexalee par exemple tey jii nii je pense que ne ñàkk considération ci parti wala neen warul tax sax ni dem transhumé man personnellement ci sama gëm-gëm parce que dama gëm ne man muy dugg ci parti bi du leader parti bi moo tax ma dugg c'est pas sa personne hmm. man c'est pas la personne du leader moo tax ma dugg ci parti bi déedéet mais li mu proposé projet bi hmm. les convictions yi nga xamante ni moom la ko bëgg a defee mais bu nekkee ne man Birama moo tax ma dugg ci parti bi Birama su ma neexatul damay dem. mais bu nekkee projet bi idée yi conviction bi li mu yéene def ci Sénégal li nga xamante ni moom la teg ni fii lay jaar pour développer Sénégal moom ma tax a ñëw moom bu changé comportement grave mais tant que mu ngi en phase avec la ligne directrice. ci li nga xamante ni moom mooy projet bi li nga xamante ni moom la mën a tegal sur la table pour ñu ànd ci ñu bi loolu tant que changé wul y moom bu changé nag loolu c'est sa personne mun naa waxtaan ak moom mais tant que ñu ngi tegu. sur les bases du départ. te par exemple tey euh, Birama nekk leader parti politique lii laa teg maanaam Sénégal bëgg naa ko développer nii nii lay jaar pour développer ko lii la laaj lii la laaj kaay la ñu ànd ci dëgg ak ngor fulla ak fayra pour ñu def ko. ma xool li Birama proposé mu doy ma lool ma ñëw ànd ak moom ci loolu Birama bu changé. dérangé wu mais tant que le projet reste intact. tant que li ma li tax ma ñëw reste intact du tax ma transhumé. donc ça ne dépend pas de la du comportement de la personne ça ne dépend pas de ñëw naa peut-être joxe naa sama avis wala ñu tendu compte déedéet man à la base man su ma ñëwee bokk ci parti politique nekkul ci instance rek lay dem di xaar pour ñu valider man li may wala li may def non non non am nga base ma nga commencé bay sa weew tànk fi nga dëkk. sa kër d'abord sa quartier d'abord sa village wala sa ville nga. commune. sa département donc foofu ngay commencé nga job fa job fi mooy lan da ngay dem yóbbu sama idéologie parti lii la projet bi lii la lii lañ bëgg a def nga jàngal ko ndaw ñi fa nekk nga convaincre les gens ñu fa nekk ñu adhérer. et dafa am ñoo xam sax seen conception mooy parti bi yàgg naa ci. Mhm. li ma ci dund. Mhm. li ma ci dépensé. gis naa ñu récompenser keneen ñu bàyyi ma. non non non pas loolu. Mhm. li ma ci jot j'ai déjà mouillé le maillot. de telle sorte que. su ma génnee. boo def naa may perte. mais ma ciy nekk. daanaka dara nekk fa woon. mooy li ma wax perception boobu noonu c'est très malheureux. comme ku mel ni yow. Ah. sànq ba yaa ngi wax waxoo ni jot nañ leen fee teg loxo. non maa maa ngi ñëw dinaa si ñëwaat. xam nga non dama bañ nga fàtte ko. non yàlla tere après non si nekk fële. perception boobu noonu perception boobu noonu c'est c'est Pastef xaw ma ex-Pastef bis ñoo jël sat ñi jot nañoo. <laughs> comprendre Birama c'est c'est très malheureux en fait perception boobu noonu. que ne parti bi bokkoon naa ci def naa ci lii ak lii ak lii ak lii foog ma récupérer ma defoon non c'est très malheureux xamul tax est-ce que yow bi ngay dugg ci parti bi xeex da nga demoon pour sa poste wala pour sa njëriñu askan. non dama la non comprendre. non non waxuma pour yow de. waaw maanaam lii di xaw ci parti politique Sénégal laa wax. maanaam pour ñenn ñenn ñi. Mhm. bu ñëw ci parti pour ñëw man bokk naa ci parti peut-être parti pouvoir wala leneen. wala nga ñëw ci parti avant sax ngeen di falu. Mhm. nga xeex xeex ba ngeen falu joxuñ la poste joxuñ la xaalis nga mer gedd na da ngay dem. wala par exemple nga bokk ci parti opposition peut-être nga dem élection législative wala élection communale peut-être investir wuñ la leneen nga gedd dem fekk parti bu baax mais léegi loolu yow lan moo la taxoon jóg bëri na sa poos sa ndombal tànk wala yow intérêt commun intérêt du peuple sénégalais moo la taxoon jóg mhm. man dama jàpp ne bu nekkee intérêt peuple sénégalais moo taxoon jóg man ni may fonctionner lay wax ah poste bu tegoo moom xëccoo du ma ci bokk xam nga du ma ci bokk mooy ci biir parti laa waxuma la peut-être dem élection la mais ci biir parti peut-être par exemple ñu ne ma jox la exemple ne ah fii kat dañoo a investir kenn ku nekk maire commune bi man ak samay frère de parti ñi ñoo ko bokk am quatre yu bokk ci frère de parti ñu bo ñu xëccoo man damay retiré sama boobu du ma xaar ñu retiré ma. xamul ah ah hmm. ma jàpp ne sama quatre frères yi xëccoo ku ci falu rek pour intérêt population moo tax nga falu donc ku ma si jàppale man ma falu yow nga falu c'est la même chose donc intérêt population bi ngay doxal loolu mooy ni slogan du parti Pastef don de soi pour la patrie il faut savoir sacrifier pour faire émerger les autres ou bien pour faire développer sa patrie. yow sacrifié ah? bu baax parce que xamul tax. Hmm. sacrifié mooy. gis Ousmane sonk teg projet bu leer ma gëm ne projet bi Ousmane Sonko yéene les Sénégalais bu ko tegee mbuumu jaamel dina dagg Sénégal dina développé Sénégal yi dinañ jot seen i alal te y aura les hommes qu'il faut à la place qu'il faut